fédération bi li ma leen doon wax démb ba léegi nanu répliquer nanu wax nanu xaru nanu dee mais li ma leen di wax matuñu mbuus te dañu yàq mbuus tey jii li fédération def mooy manquer respect aux Sénégalais Sénégalais yi ñoo war a préparer wu jóg balaa ñuy dem Coupe d'Afrique waxante ñoom bu jaree nit ñi di génn ci mbedd yi ñuy génn ci mbedd yi bu bu jaree président de la république war jël responsabilité am ndax lii xew nii mënuñu leen jël di leen jox xaalisu askan bi pour ñu fi voyager xaalisu askan bi pour ñu fi toppatoo équipe nationale yu mel nii di am ministère lu mu war a def lépp def na ko président de la république lu mu waroon def lépp lépp def na ko léegi nag ñoom ñoo nekk classe amateur du yoon du dégg fédération bi li ma leen doon wax démb ba léegi nanu répliquer nanu wax nanu xaru nanu dee mais li ma leen di wax matuñu mbuus te dañu yàq mbuus tey jii li fédération def mooy manquer respect aux Sénégalais Sénégalais ñoo war a préparé wu suuf balaa ñuy dem Coupe d'Afrique waxante ñoom bu jaree nit ñi di gën ci mbedd yi ñuy génn ci mbedd yi bu bu jaree président de la république war jël responsabilité ndax lii xew nii mënuñu leen jël di leen jox xaalisu askan bi pour ñu fiy voyager xaalisu askan bi pour ñu si toppatoo équipe nationale yu mel nii di am. ministère lu mu war def lépp def na ko président de la république lu mu waroon def lépp lép def na ko léegi nag ñoom ñoo nekk place amateur du yoon du dëgg.